Euh, mbëru sénégalais yi dañ fiy ñëw di entraîner nga leen jàppale suñu amee combat euh, j'espère que tam bu ñu amee combat MMA da ci bokk tamit. waaw waaw parce que vraiment ça moom c'est j'en profite même de l'occasion pour lancer une appel euh, une appel à à nos ñi xam ne ñu ngi bëgg aventure yow ci MMA so MMA yi du du du bëri simple il faut plus c'est pas dire que bëri simple baaxul c'est c'est formidable mais il faut en plus pour def MMA il faut plus ce plus là ñu tey ak académie bi ñuy yor ñu ngi leen ubbi suñu bunt pour que ñu ñëw ñu jàppalante ñu mën leen dolli xam-xam ci domaine bi ñuy bi ñuy yëngu dama gis ne ci MMA bi am nañ mbëri yoo xamante ne yu bëri yoo xamante ne daan nañ leen fi comme ku mel ni euh, Siteu Bombardier ak Reug ay daan yu doy waar ma bëggoon xam en tant que expert yow loo ci loo ci mën a wax daal. waaw waaw mais parce que vraiment c'est des c'est des c'est ci domaine bi ñu nekk. mais comme je disais tout à rek domaine de MMA métier la il faut plus il faut nga mën bëre il faut nga mën a dóor. est-ce que du ñoom xaalis la euh, le risque et la parce que xaalis boo xam ne da nga koy da nga koy utee euh, ci MMA te fekk jàng. en tout cas daan doy waar lañ. leen daan non non daan sax daan sax mooy mooy mooy li gën a sedd. temps yi mooy lu gën sedd parce que MMA soow du du affaire du affaire du soow. d' accord aussi gis nañ ko mu am ci une belle victoire moom tamit loo koy wax ak euh, loo xalaat ci avenir am ci MMA. ba euh, avenir Ketchup je pense que ci réseaux sociaux la gën gën a la gën a neex ah honnêtement ci réseaux sociaux moom vraiment mu ngi def liggéey bu bu bu mucc ay mais quant à ci wàllu MMA donc moom. Euh, so mun na peut être ay ay ay frères am mu mu coaché leen so man loolu en tant que expert. maintenant relation humaine so il c'est formidable mais par rapport à l'MMA il n'a qu'à aller euh, faire show c'est bon mais euh, communication n'est pas n'est pas n'est pas MMA yi. Ah, gis nañ Pawlish Mbaye bi mu daanee euh, Ouzin Keita laaj na. tëjëmam moo ma jaaxal te dina waxkat yëpp dina leen daan. exact exact exact moom vraiment dina am chance pour pour songo waxkat yi quoi mais waxkat yëpp moom xam naa ah, ah, combat wax tamit dina dina jaay ah, MMA bi mais il faut que wax bi vraiment taw fi ñu toll. ñu daal ñu passé ko su sérieux je pense que après dinañ interpeller Ketchup ci euh, euh, nu ñu koy waxatee ci ci ci euh, kii nu ñu koy waxatee waaye. dinañ interpellé Ketchup ci ci ci ci combat bi. ci dëkk bi ko bi ko kii dëkk. Pawlish euh, Pawlish Mbaye dëkk. mais Pawlish nga xam naa moom je l'aime bien mais xam naa mën na mën na entraîné ba ci kanam quoi balaa moo sangu ba sangu waa ji parce que wax yi bokk na mais micro bi waa ji yor moom yoragul micro boobu quoi na xaar ba ci kanam.